Sénégal a ngi nii jàkkaarloo ak yow. lan nga leen di wax tey waaw bismillahi rahmaani rahim hmm. alhamdulilah laay njëkk a wax xam nga sant yàlla julli ci yoon bi rek gërëm ñaari waajur di santaat yàlla bu baax a baax xam ne dañoon aussi maak sama adversaire yëpp yàlla xañ ko may ma damay sant yàlla di ko encouragé moom it prochain combat yàlla may ko di ko wax sport nii la hmm. te man conseil yëpp yab yëpp dafa doon benn waaye ma teel la micro waaw xam wax ji yëpp benn la ñu may conseil boo demee na nga tey moo tax. mais tey yow mu gën a leer. mais li ma def bu ko def làmb ji sotti na bu yàgg kon du génn premier round bi quoi. xam nga li may wax sport ñaar ñoo def. xam nga jël naa sama initiative xam rasu ba affaire bi demee nii quoi mais sant yàlla rek. alhamdulilah uh-huh. li nga bëre. waaw li ma bëre moom lañ ma yab rek. xam nga mooy bul pasar pasaree sa combat est-ce lu lu lu sant. non wax dëgg yokku ci dara <laughs> yokku ci dara liñ ma wax mooy teyal dégluwaay yi loolu laa ñëw indi. Birahim waaw booy wi euh, muy euh, kii da daraam bettu ma nee naa la lu mu def ma ne ma na lu loolu parce que ba ma koy jël di ko yóbbu yóbbu Diop Diop ñuy muy bëre ji mu ne xale bu ndaw la mu gaña a maa ko yóbbul papaam ne papaam kii ma taal sama dem ba ci baayam toog yaayam toog mu ngi nii toog ak sërëm ma ne ko mu ngi nii toog li ma du ma fenn te du ma ko sol mbooloo ak rajo nangolo wàccee liggéey moo ngoog moo tax du ma ko fàtte mukk dégg nga boobu ma jël drapeau ancien maire Dakar la Pape Diop waaw ah. boobu drapeau première édition drapeau Pape Diop la woon moo ngoog boobu final lañ ma daanee dëgg la ba may ñëw ba may ba may yóbbu ba may dem moom mooy yóbbu ba kër ga ah. ñu ànd sam néeg Pape ñu toog xam nga mu ni jàppale leen ko su ngeen ko jàppalee mun na sori boobu yàgg na xamoon. ñu gis avant combat bi. Mm-hmm. ñu gis confiance bi Lac de Guiers am. ci biir combat bi ci avant combat bi. Lac de Guiers fu mu toog wax wax boo xamante ni ñëpp yaakaar ni la de Guiers bu bu baay bu ñëwee. dina def lu raw li mu def. xam li ma doon wax rek. lu bëy lekk di ci ci moom la xar lekk na mais xamul man wax dëgg maa ngi woon sumay entraînement mën naa ne nu ma séree ci bi mosuma fooy entraînement mais bii nu ma séree mosuma ko séree. waaw maa gars yi sax grand yi course yi des fois dem na ci leneen mais combat bi maa ñoom suñu programme yëpp yëpp yëpp benn yoon laa laa ñëwul entraînement benn yoon mais xam nga béykat mais noonu la mënoon demee daal xam nga <laughs> def naa li ma war a def moom it def na li ma war a def ànd ak ay mbokkam xam nga yàlla moo ma may xañ ko prochaine fois. mais mu jël sa tànk daw ak yow. waaw da koo daal. waaw ah, mais loolu dara loolu làmb la rek <laughs> suñu duggee fii contact moo gën a metti làmb fuuf. Ah, fuuf làmb xam nga benn. samp la rek. mais contact bu gën a métti fuuf da ngay samp ba tëdd doo doo mën jóg. bi mu jëlee si tànk wër na la ne du la ci daan. dama jàpp ni entraînement laa nekkoon rek ah sóoraale wu ma sax ay daan. bi mu jàppee sa tànk. billaahi wallaahi. pour yow yaa ngi entraînement. <laughs> boo ko yéen waaw li ma li may àggale. mooy monsieur Moussa may déglu ba bàyyil. kii ba ñu àndee te Iba Mar Diop mu nekk booy bu ndaw booba xale la. dégg nga li ma la wax la mu gañe maa ko jox papaam mu toog sërëm toog moom mi toog ma ne ko sa papaam góor sa doom ji bu amee sa ñaan di ko dégg mu ne ma doom ju ma gërëm la doom ju ma gën day xëy di ma jàppale ci liggéey ba mu naaj mu door entraîné ji doom ju ma gërëm a ngi ma ne ko dinañ ko mës a dégg nag mu ngi nii toog maa ngi loo moo tax na ne bëri loo ci def bettu ma gis nga reportage boobu ma def keroog maa ngi bekkaay toog ni paaw may la ne ko booy bi sama kanam la bëri mbapat nekk ko fu ne mënu booy man daal maa ngi lay bëri si la ñaanal rek parce que tamit yow xam nga man xam naa yàlla xam na lool waaw fu ñu yegg tamit sa loxo ci. parce que li may wax écurie ba mu ko ba mu ko sosee. waaw man dama naan dem foofu di entraîner di ànd ak sama gars te boobu rek énergie moo njëkk a taxaw. mais dama naan jógee foofu suñu écurie di dem écurie tey lu ne ñun lu bari. waaw moom loxo moo ngi ci. xam nga dañ koy ñaanal moom it yàlla may ko gudd fan ak wér ba mu fekkee njëriñu njaboot gi yëpp. pourquoi bi lamb ji jeexee ngay wër géew bi. ah mais xam ma rek man sigim laa rek geesoo ma yóbbaale. <laughs> gars yi dañ naan ma defar rek ma def ah sama gars yi xanaa estaf bi xam nga fa laay xam di gërëm estaf Rock Énergie ci coach yi Pambay Alioune Dionu Ibou xam nga. ñoom balaa ngaa gërëm ku fi des. Mhm. gis nañ la parce que ñu nu yaakaaroon ni boo bëreeg ñoom ñoo la ëpp doole ñoo la gën a yàgg ci lamb nga daan leen parce que ku am victoire ci Lac de Guiers daan Eumeu daan Gris Bordeaux vraiment am na loo def ci lamb loo xamante ni mënatul la réer ci lamb. mais force ak masse xam bu ñu gisee xam nga entraîné ba os sénégalais pour ñoom ngand rek mooy doole xamul ne affaire du foofu. nit mun na la ñaar nga ëpp ko doole xam nga tey kii su ma ëppoon doole daan na ma parce que yegg na ma foo xam ne su ma ëppoon doole daan na ma. yow fi mu lay yegg boo ko fa yeggoon. kon kenn waxatu ko. foofu nag du la daan parce que bal ba mu bal ca loxo ba loxo ba mu ne ca pokkataan ma laa ne bekkaay du ko fii du sotti parce que ba mu ko dëbee sol loxo ba génn loxo baa nga ca pokkataan ma dafa sa ngem nga bal ko boo ko balee du dem booy yow itam man daanaan laa yow itam. ah mais moom kaamil kaamil la ci waa Sénégal yëpp. xam nga di sant parcelle 1 ba 26 sama fan club yëpp génération xarañ waa xarañ famille xam waa Temax club waa xarañ moo ñu boole xam nga ñëpp laay sant daal xam nga parce que gis nga mobilisation bi tey nu mel avant maa génn koñ ba rek sérieux problème la xam nga ndax mobilisation bu taxu ku des laa wax ku des di gërëm mais ku des. père làmb mooy suma liggéey mosuma ne nañ ma jox diw làmb mooy sama liggéey maa ngi entraîné teg lu ma làmb boole ma jël incha allah. non rek la. Hmm. jërëjëf monsieur le ministre balaa Modou loo di dem tey ñu tudde woon bis bi le président de la république mu doon bis bu mag yaakaar naa ne li ñu tudde woon président de la république li ci waroon a am yëpp mat na jërëjëf euh, Bécaye ñu ngi leen di féliciter surtout yéen équipe bu 2S bi tax tey Sénégal ak euh, monde bi yëpp ñu seetaan lamb ju rëy ñu tuddee président Macky Sall di féliciter Modou Lo di encourager l'acte de guerre de euh, tey mobilisation bu exceptionnelle moo am fii ci Léopold Senghor mais bu ñu xoolee mobilisation bi aussi dina ñu gërëm Pape Abdou ak l'ensemble des promoteurs de lutte du Sénégal parce que ay doomu Sénégal lañ engagé di jël ay risques di organiser ay combats pour bëggal sénégal yi mais aussi